doon nañ créé benn front bu mag ñu tuddee ko aar suñu élection ñoom ñu ngi doon xeex ngeen déggoon ay centrale syndicale di ci doon wax ak ay organisation yi nga xam ne ay euh, association la ngeen dégg tamit euh, FC 25 mooy kuréel bi nank le du 16 candidats yi nga xam ne d'accord nañ ni processus bi il ñu continuer ko tëglëg nag ci loxo conseil constitutionnel ngeen dégg ci F24 dégg ci ñeneen ak ñeneen donc ñu ne woon nag li gën a rafet mooy ndegam cause bi benn la mooy démocratie Sénégal sàmm nag suñu constitution euh, génne fi fitna gi fi nekk mooy ñun ñëpp nañu def benn say say boobu moo waraloon boo ko seetloo ci suñu conférence de presse bi ñu def euh, barki démb ñu ngi doon wax ni léegi ñun dañuy fekki sax FDD mooy kuréel le front fippu euh, dañuy dem fekki FDD ci manifestation bu ñu xam ni soxla bi benn la combat bi ak mot bi benn la donc euh, ma félicité donc waa FDD yi amoon initiative bi ba pare nag nangu xajal lépp nangu sax bàyyee euh, événement bi le front pour la résistance parce que ñun ñëpp léegi tey moo ñu ëmb bon euh, bi ma demee tamit j'ai été très content d'abord ci li ma gis ci mobilisation ndawu réew mi parce que mobilisation moom boo ci gisee les jeunes du pays rek tu es content mais Euh, malheureusement comme on dit quoi les dañoo am seeni mauvaise habitude xeex yu bëri nag politiciens yi lañ koy xeexal parce que boo ko seetloo 2000 bi ñuy xeex fii ba Ablaye Wade falu ñun ndaw ñi ñoo jógoon xooluñu woon kan mooy falu mais li ñuy yittaloon mooy démocratie Sénégal jëm kanam waaw def mu nekk Ablaye Wade 2012 it yeneen ndaw Sénégal ñoo yokk ci ñun ñi xeexaat ba beneen alternance am mais boo ko seetloo. ñi ciy gën a fës ci mobilisation sénégalais yi ay organisation société civile lay doon bu ngeen ko seetloo mouvement Y'en a marre xam ne woon nañ ko ci ak la plateforme des acteurs non étatiques en général c'est les organisations de défense des droits de l'homme ñun politiciens ñëw rek bokkaale ci te après bu bénéfice di am ñun ñoo koy njëkk am parce que benn homme politique mooy falu ci bopp réew mi donc bu ñuy ñëw nag on vient avec notre désordre euh, damay bañ moom ci événement yu mel nii Euh, li ma joxe woon comme mot d'ordre mooy nanguwuma sax nit yóbbu fa t-shirt wala casquette wala affiche bu nga xam ne suñu coalition moo ko yóbbaale parce que discipline de groupe mooy situation bi c'est tellement sérieux euh, fi ñu toll nii que tellement sérieux que ñun ñii bu ñu amul conscience ni ce n'est plus une bataille de positionnement c'est une bataille pour la libération du Sénégal day nekk beneen beneen beneen enjeu après bu boobaa ñeneen dugg ci situation de désordre bi ñuy créer bi mu indil lu mel nii Et c'est dommage. Aujourd'hui, on s'est trompé de combat à la fin. Surtout à la fin. On s'est trompé de combat parce que le combat, la plupart des messages le disaient. Que d'abord, ki fi nekk tey le 2 avril lay jeexal ak situation bi nu mun munti grave moom moo ko créé ndax tuuma sax bi taxoon bi ñu ne dañ ko reculer kenn déggaatul dara ci tuuma boobu du dëgg donc ñu xam ni rek plan la bu ñu laloon rek ñoom ñoo parewul woon pour dem élection seeni motivation nag ñoom ñoo ko xam mais bu ñu toogee bi ñëpp jóg mu nekk vraiment naqar pour Sénégal li nga xam ne moom la ñu doon bàkkee ci àdduna bi ñu koy ñàkk ñu ñuy reetaan léegi bu ñuy dem nag ci lu mel nii nañu xam ni loolu moo ñu yëkkati ñëwuñu pour wane ni maa ëpp mbooloo wala diw moo ëpp mbooloo wala mbooloo jamono njabootu diw moo fi nekk déedéet bu doon loolu ñu def ko meeting bu boobaa ku ne mobiliser ay militant am indi ay pancartam ak message buy waxee au moins euh, ay militants bi nañ fa nekk donc may may invité ñëpp nag euh, de ne pas se tromper de combat il y a pas pire que de se tromper d'adversaire ou de combat te là aujourd'hui euh, ñi doon xeex tey ils ont ils se sont trompés de combat ak ñu munti demee suñu xeex suñu biir suñu manque de solidarité suñu biir day mettre l'autre partie dans une situation confortable ba lu ñu bëgg a dérouler ñu dérouler ko parce que bu dee toog nañ des militants de la démocratie viennent se joindre aux ñoo ñu bu ñu bankee seen loxo toog bu kenn génnul li fi am kenn mënu ko maîtriser parce que il faut que ñu xam ni y a une pression populaire buy tax bi ñuy dellu ginnaaw du wax bi rek donc il faut que ñu wone ni sénégalais yëpp jóg nañ pour sàmm seen démocratie lii nii ñu ngi ko bëgg a def dans le cadre de projet à ñu ngi ko bëgg a def dans toutes les collectivités du Sénégal boo ko bëggee def lu mel noonu fekk cette rivalité là dañ ko fay mo wone dina xaw a doy waar te nag pour man fu mu nekk nii objectif yëpp benn la mooy d' abord élection yi nañ ko dérouler conformément la décision du conseil constitutionnel benn ñaar ñaar ñun ñëpp ñu ngi xeex pour la libération des détenus politiques ce sont ces milliers de jeunes yi nga xam ne ils sont innocents dans ce qu'ils ont vécu mu ay ay nit yi nga xam ne xamuñu kaso ñu xam loolu ni luy kaso ak ni kaso mel xam nga loolu yëpp ñu xeex ko ñu commencé génne ndaw yi ci réew yëpp ñuy xeex tamit pour la libération des détenus politiques comme Ousmane Sonko comme Bassirou Diomaye Faye parce que Bassirou est un candidat à l'élection présidentielle ñu comprendre mu war a dem campagne te mu ngi gasoo donc yooyu yëpp nekk nag ay combats yi nga xam ne waroon nañ ko mun bokk ak nag yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy lal comme ay plan pour diviser ñu wala ay plan pour au moins ñoom ñu am le plus de marge de manœuvre possible ñu leen di may occasion bu mel nii donc bu subaa bu waa ji taxawaatee xalaat ni dina fi def ñaari at ñun ñoo ko ku may donc il faut ñu xamee ko noonu et c'est pourquoi je pense qu'il n'est pas trop pour parler au Sénégal wax leen ni bu dee suñu démocratie moo ñu yëkkati bu dee nag sàmm suñu liberté ak li ñu moom moo ñu yëkkati bu ñu jaawale combat yi bu dee amoon na ay fitna yu amoon si seen diggante ndax ay rivalité parce que loolu day am tamit ci politique ngelawaay nañ ko tegagum bi ñu am li ñu bëgg mooy ñu dem ci jongante yi après ki war a réconcilier dëgg Sénégal mooy ki yàlla di tànn mu jiite réew mi parce que lii ñuy def nii seen amnistie yi nga xam ne ay opération de comme la wala un sauve-qui-peut du loolu mooy réconcilier Sénégal yi ndaw boo tëj kaso ay weer fekk deful dara bu génnee moom il demande des réponses il faut savoir pourquoi on lui a fait ça bu amul réponse au moins nga ne ko massa mais mënoo ko rawale génnee ko mu toggaat ak meram bu day gën a jéppiwaat nit ñi donc ñu jéem a xool naka la ñuy fexewee ba xool yi nekkaat benn sur notre combat ñu déroulé ko et pense que c'est possible c'est possible parce que déjà kuréel gi nga xam ne ci lañ bokk mooy FC 25 ak yeneen kuréel yi ñun ñooy toggandoo mais maintenant il faut que les responsables politiques donnent l'exemple parce que ñiy xam bu taal bi xam nañ leen boo toogee accuser responsable jàmbur wala accuser parti jàmbur après mais lii am mooy militants yi ñooy wane parce que aujourd'hui il faut pas tromper ñun ñii bu ñuy dem foofu suñu ay farandoo dañu fay dem donc man suma ay farandoo bu ñu déggee ne euh, beneen responsable song na ma ci wax wala ci yu mel noonu mais c'est normal que bu ñu dajewee foofu ku ne bëgg a wane sa bopp sa bopp donc ñun ñii ñoo war a tamit joxe exemple parce que moi je ne peux pas en fait je ne peux condamner ces jeunes là ces jeune se battent pour la démocratie kenn xamul dans quelles conditions ils viennent dans ces meetings là lu dëgg seen rassemblement yi bu ñuy ñëw xamoo naka lañ ñëwee xamoo sax ndax am nañ ndox bu ñuy naan donc ñooñu démocratie yëkkati na leen yaakaar ci ni seen responsable politique bu faloo xëy na mooy changer réew donc ñooñu ils sont engagés mais maintenant nañ leen mettre dans les conditions pour ñu xam ni war ñu jaawale combat yi te fu mu nekk nii foofu lañ jëm bu ñu bàyyee tension bi am ni continuer d'abord on ne réussir de rassemblement bu boobaa tamit on donne l'occasion au gouvernement de Macky de faire comme il a envie mais bu ñuy jooy nag ñun ñëpp a jooyandoo ndax ñoom seen plan ñu ko toppee fii ak ñaari at kenn doon élection